mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant eh, fas yéene seq ak yenn benn jotaay boo xamante ne bii mouvement bi juddu jamono yi te tudd yokk ba yëg ko eh, moom moo koy faral di amal weer bu jot dinañ ko amal benn yoon su ko defee chaque semaine ñu rediffuser ko émission bi nag comme mouvement bi rek noonu lañ ko tuddee émission bi mi ngi tudd yokk ba yëg ko. Euh, li ñu yitteel ci émission bi nag mooy euh, lépp loo xamante ne bi ay wuruj la ak njuuj njaaj ak wax li ne ci ginnaaw dëgg euh, ñu fexe daal ci suñuy communication nit ñi peut-être bàyyi loolu waaye aussi di wax lépp loo xamante ne bi moom mooy dëgg ndax jàpp nañ ne dëgg moom moo mën a jàllee mbir mu mën di doon moo xam développement walla yeneen yu ni mel donc ci gatal daal li ñu bëgg rek moy bannir lépp luy mensonge promouvoir lépp lo xamante bi moy vérité waye aussi askan bi sax ci loolu mom mo ñu yitteel motax suñu première émission tay sax ben proverbe lañu jël proverbe nak suñu ko doon wax ci may olof xëy peut-être moy olof njaay nee euh, si l'on se conforme dans toute chose à la vérité le bonheur amassé s'accroîtra de soi-même lolu xamna après dinañ ko laaj ki nga xamne mom lañu dalal mom moy pap Fary di di kat dekk Jurbel ñëpp rafetlu xam-xamam donc xamna dañ koy bayyi ak micro bi mu nuyu mbokk auditeur yi ba paré présenté wu bu baax ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa bokk setan kat yi ñing leen nuyu bu baax ku ci nek ci turam ak santam di jël nuyu bi di tek ci ki ñu ubbil buntu bi ak way bi bañu mën ci jaar muy Haji babakar di ñaanal tay sa ko ci mom ñaan lepp lu mu yene ci njaareem ak ci askanu Senegal, yalla defal ko ci le kay njortam di nuyu téléspectateurs ak auditeurs yeb di len euh, wax ne yene ngi jakarlo ak euh, pap Fary nek jangale kat ci lycée d'enseignement général ci Diourbel euh, nek tam kat ci ay yenn ci ay téere yo xamne ne dogal na jaarale ko ci loxom moo jakarlo ak yeen di len nuyu di len wax alaykum wa rahmatullah di am mbégte lol and ak yeen ak and ak xaaj babakar ci jataayam bu am solo bi nga xamné may nañu defal ñu xéewal ñu mën ko ñu ñu tambalé ko ak mom ñi ngi ñaan mu yàgg di ko di ko tourné te lepp lu mu ci génn rek mu doon lo xamné day jariñ askan wi jëme Sénégal ci kanam. jërëjëf Pape Fary Seye ngi lay sant bu baax di la gërëm donc comme ni ñu ko waxee rek ñu dugg rapidement ci émission bi. Euh, pafari Farid bi ñu fas yéene waxtaane tey euh, nasaraan moo ko wax mu ne si l'on conforme dans tout chose à la vérité le bonheur amassé s'accroîtra de soi-même Pape loolu soo ñu ko doon tënkal tey ci kàllaamay Kocc Barma mooy lan waaw jërëjëf Hadj Babacar loolu mën nañ ne kàddu ko dëgg la ndax li mu ne képp koo xam ne tënku nga ci dëgg bànneex bi nga jot a am day xel di yokk loolu day wane ne dëgg mooy liy jëriñ doomu aadama bi ci dundam ndax mooy li nga xam ne soo ci nekkee doo am benn remords doo am benn regret doo am benn rëccu boo xam ne danga koy def ci kàddu goo wax wala ci jëf joo jëf te tegewoo ko ci dëgg soo ko tegee ci dëgg nag dangay ngay noppalu soo tëddee dangay nelaw dangay lekk ba suur dangay naan ba màndi te doo am benn stress mais nag tricher contraire bi moy kuy tricher di def souvent da ngay am ben gêne da ngay am ben regret da am remords da am stress bo xamné da lay bëgg a def rek bu sa xel da lolu day daal di sa dund day daal yok sa sa njaqare motax kaddu gu wóor la kaddu gu leer la kep ko xamne dal yaangi tege ci deug banex bi nga jotagum am ci deug day yok way du wàññeeku. jërëjëf Pape fari tekki bi nga ñu tekkel euh, nasaraan yoyu leer na donc euh, may fàttali thème rek moy lolu si l'on se conforme dans toute chose à la vérité le bonheur amassé s'accroîtra de soi-même. donc li muy tekk daal mooy euh, comme ni ñuy suñ sukkandikoo ci Pape Faris yi mooy bu nit saxee di ci dëgg daal yàlla mën na ko soqalil boppam yàlla mooy soqali doomu aadama jooju euh, loolu la proverbe bi tekki euh, en tout cas daal li ñu gis daal mooy képp koo xam ne sax nga ci dëgg daal mën naa am nga am jàmm jurul jeex waaw xanaa li may waxaat Pape rek mooy ndax d'accord nga ci proverbe boobu waaw xaaj xam nga dafa am kàddu dëgg yoo xam ne Euh, dafa romb religion ak croyance ndax religion mooy ki nga xam ne gëm na ne yàlla am na ay yenent am na mu tënku ci diine christianisme wala judaïsme walla ci islam wala mu tënku ci diine maam waaye dafa am dëgg yoo xam ne dafa romb foofu ndax dëgg moom même bu fekkee ci diine la génn na diine da dëgg nit ku ko dégg danga koy nangu moo tax li mu ne ku sax ci dëgg bànneex bi nga ci jotaam day yokk waaye du wàññeeku loolu c'est universel te bépp diine boo jëlit day nangu loolu day dëggal loolu ndax diine li ko tax a jóg defar nit te diine yëpp dafa tënku ci ci ci dëgg dinañ ci revenirat kon d'accord nañ bu baax ci ne dëgg ku ci tënku bànneex ba nga ci jotagum am day yokk waaye du wàññeeku bëri na tam ay misaal ak i exemple yu firndeel loolu donc loolu ki gëm ak ki gëmul musulman bi ak chrétien bi juif bi ak athée bi ñoom ñëpp méngoo nañ d'accord ci ne principe universel mooy dëgg mooy vérité bi nga xam ne aajowul ci race aajowul ci couleur peau aajowul ci ethnie aajowul ci religion mais nit yëpp nangu nañ ne dëgg ku ci tënku sa bànneex day yokk waaye du wàññeeku ndax dëggoogu sax même monde végétal bi dañ ciy gis seen bopp monde animal bi dañ ciy gis seen bopp kon dëgg boobu moom c'est un principe universel boo xam ne d'accord nañ bu baax ci proverbe boobu. jërëjëf Pape Fary kon euh, d'après say explications euh, nangu nga ne donc euh, li nga xamante ne bii moom moo ñu yëkkati tey muy képp koo xam ne sax nga ci dëgg sa mbegte wala sa bonneur mën na yokku loolu nangu nga ko joxe nga sax ay exemple ba ci monde végétal beeg yeneen yu ni mel. Euh, mais dama bëggoon nga jox ñu benn exemple benn misaal boo xam ne mën nañ cee def duut baaraam ci ne daal dëgg moom moo joxe koom-koom bi ci àdduna wala yu mel noonu. waaw xaaju Babacar laaj nga laaj bu am solo ndax dëgg mel na mën nañ ne moom moo tabax àdduna moom moo tax génération di ñëw beneen génération di ko remplacer. aduna di maintenir di dox ba agsi ci ñun te day génnaat suñu loxo wala ñu genn mom ci biram muy continuer waat di dox donc deug mom mo mën doxal aduna ndax dafa am lo xamné dafa lekkelo muy dom aadama yi gi ak malay yi lu ci nek dafa am relation bu len bu len bolé ndax tay su né dom ci deug manam dina wattandiku di polluer li nga xamante ne moom mooy les fonds marins ndax dina bàyyi xel ne foofee di biir ndox mi am na ay bakkan yu fa nekk di fa dund comme moom ni mu nekkee bakkan di dund bëgg moom ñu respecté ak dundam ba moom mu mën fee nekk moom it noonee la war a respecté dund ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir fonds marin yi ba du leen polluer ba tax ñooñu di faatu te moom bu leen polluer bañ faatu moom dina bëgg jënt doot côté mën mënatee am dëgg googu mu sax ci mooy yoon wi nga xamante ne mooy yoonu nit yoonu humain mu sax ci dina ko permettre aussi que li naan déforestation maanaam di dagg garab yi te soxlawu leen dina ko wattandiku ndax gis na ne bu leen yi dagg te soxlawu leen loolu mën na ko yóbbul li naan réchauffement climatique fonte des glaciers nga xam ne adduna bi day mel ne day jëm ci gën a tàng day jëm ci gën a metti te loolu doomu aadama moo ko yóbbee boppam moo tax mboolem kuy bind di borom xam-xam ba àdduna sosoo ba léegi ak ñi fi jaar yëpp di ay kilifa moo xam ay yenente lañ moo xam ay nit yàlla lañ wala nit ñu baax wala ñoo xam ay bindkat lañ ñoo xam ne sax bokkuñ ci benn diine boo xoolee ñoom ñëpp li nekkoon seen problématique li leen jaaxaloon te ñu bëggoon doomu aadama yi delloosiwaat ci seen xel mooy naka la ñuy def ngir dund ci àdduna te dund ci dunduk bànneex te dund bànneex googu ak mbégte boobu mooy dund ci àdduna bu jàppandi ñoom ñëpp nangu nañ ne mënul am ci lu dul nit ñi tege ci yoon yoon woowu nag dara jiitu ci lu dul ay principe te principe yooyu dara jiitu ci lu dul principe dëgg boo xoolee tey bu ñu retourner histoire bu gën a lointaine texte yi gën a yàgg ci Égypte da ngay gis ne ñoom fi ñu sukkandiku ngir mën a defar seen civilisation bi nga xam ne tey mooy doon li tasaaroo ci àdduna bi yëpp ñoom ci dëgg lañ ko teg moom lañu naan la maat la maat maat bañ nañ ko ba dëgg googu fonk giñ ko fonk dañ ko diviniser ndax Égypte lépp loo xam ne dafa am solo dañ ko joxoon un caractère divin ndax société la boo xam ne dafa nekkoon société fondamentalement religieuse moom la ñuy ëndaale ñun séeréer yi bi ñu fay jóge moom la ñu ëndaale ñun bañ fay jóge moom la ñu ëndaale ñun soninke yi ak njaago yi ba civilisation boo ci jëlaat ouest africain da ngay gis ne diine da ci am doole lool te biir diine joojee dëgg da ci am ñoom fañ cëslaayee ne dëgg moo war a yor àdduna tey moo tax ñoom ñu doon la première civilisation de lumanité ba tey àdduna yépp nangu loolu di dem di manqué ak naanee ci ñoom seenu jàngale mooy dafa am mythe boo xam ne dañ koo tëral mythe bi mooy dañu ne àdduna yàlla moo fi njëkk bi yàlla nekkee àdduna ci ñoom niñ ko niñ ko jàngate mooy bi yàlla amalee lépp rek ñu ne dafa am désordre ndax yàlla bi mu nekk ci àdduna fa am ordre boo xam ne moo ko tëralal boppam moo doon gouverner àdduna moo am ordre mala yi doomu aadama yi lépp yàlla tekk ci yoon nit ñi ruus ko respecté ko ba tey boo demee ci mythe séeréer yi wala mythe dogon yi loolu da nga ko fay fekkaat bi nga xam ne am na désorde maanaam mala yi di ak di jaxasoog doomu aadama yi wala garab yi di jaxasoog doomu aadama yi ba mu am meurtre boo demee ci islaam dina la indil meurtre boobu ba tey ci diggante Euh, euh, ci diggante euh, ci Caïn ak Abel ci christianisme ah, dina la ko indil Caïn ak Abel ah muy xaabil ak ak waaw Caïn ak Abel ci christianisme boo demee ci diine lislaam aussi dina la ko indil ñu ne bi loolu amee désordre boobu ñu ne yàlla dafa dafa dafa dem bàyyi àdduna bi mu ko bàyyee ne yéen gérer leen seen àdduna waaye nag dinaa continuer di ko ànd ak yéen ci kaw léegi doomu aadama moo koy gérer. waaye doomu aadama boobu dinaa ko solo dinaa ko defal réincarnation ci sama sama sama sama kàttan ba moom mu mën a gérer àdduna te àdduna boobu nan la koy gérer mooy teg ko ci yoon léegi nag ñoom ci la ñu indi la mat. moo tax pharaon yi mës a jaar Égypte yëpp une trentaine de dynasties une mission fondamentale mooy restaurer teg la mat. mooy la justice ak la vérité ñu ne bépp pharaon boo xam ne ci dundam teg na yoon muy justice ak vérité su dee bu delluwaatee ci yàlla yàlla dugal ko àjjana nga gis ne ñoom fañ tàmbalee principe fondamental ci maat mooy dëgg ak njub ku ci nekk boo dee yàlla dugal la àjjana moo tax pharaon yi gis nga seen tombeau yi seen pyramide yi parce que dañoo gëmoon ne ñoom àdduna bi rek du àdduna dañuy dee waaye buñ dee dem ci yàlla lan la leen di njëkk laaj ndax njub gi ak dëgg gi tege ngeen ci woon wala déet. moo tax ay 3000 ans d'histoire Égypte 3000 ans d'histoire mu nekk civilisation dafa taxaw. ndax lan dafa tege ci dëgg bépp pharaon bu ñëw loolu ngay njëkk a maintenir dëgg gi mooy lan mooy une société juste ak équitable ñoom ci seen wàllu bopp muy buur yi ñoom ñooy njëkk a taxawal dëgg imposer société bi mu nekk une société égalitaire de justice et de vérité boo xam ne kenn du noot kenn donc loolu di dox di dox di dox tey ba ñëwaat ci diinay judaïsme ñëw ci diinay christianisme nga gis ne tamit Jésus dafa ñëw ngir moom it teg dekk dëgg ndax ci pas-pasu sunu mbokk chrétiens yi Jésus ñëw na ngir dekkal dëgg waaye dekkal dëgg googu jaral na ko moom mu bàyyi bakkanam bàyyi gi mu bàyyi bakkanam moom mooy tax maanaam moo ci ci ci ci mooy jënd mooy racheter mbooleem bàkkaar yi nga xam ne tey njabootam dinañ ko def te loolu gëm-gëm boobu ak pas-pas boobu tey moo tax christianisme di dox ba agsi ci ñun boo ñëwee tam ci lislaam lépp diiney lislaam dëgg la maanaam yonent bi sala salaam xatal nañ ko sonal na ko waaye mu ne lan dëgg moom yàllaa ko moom te dinaa ko wax du ma wax naka sudul noonu duma ma def naka sudul noonu ba ñu ñëw ci sunu sang bu tedd bi di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bi tubaab bi ñëwee ne damay indi leneen lu dul dëgg dañ ko du fi am dëgg gi mooy lan mooy yàlla rek mooy yàlla te ci biir yàlla jooju mooy yàlla ci la ñu mën a sukkandiku ngir nit jox cër nit maanaam nit respecté nit respecté dignitéem te teg ko ci dëgg ndax que tubaab baa ngi fi day jël ñii ne ay esclave lañ jël ñii ne ay noir lañ mënuñu xamuñu di leen noot Sëñ Tuubaa ne loolu na dañ donc gis nañ loolu lim ñu indil tey jii bu Sénégal nekkee un pays indépendant un pays démocratique un pays qui tend à l'émergence dañ koy sant suñu mag ñu baax ni kon dëgg ba euh, Alaaji Babacar jàpp naa ne fu ñu agsi ci ci ci ci ci dox ci àdduna di maintenir ci rapport bi am ci diggante mbindeefu sunu borom yi nekk ci dëgg rek moo ñu ko moo ñu ko indil moo ñu ko may moo tax sëñ Tuubaa tegoon ci bakkanam mag ñu baax ñëpp tegoon ci seen bakkan ndax xam nañ ne dëgg moom bu ñu ko wàccee rek mooy société boo xam ne société dem à la décadence la te Égypte tamit gis nañ ne saa suñu wàccee dëgg rek dañuy dugg ci ay période intermédiaire mooy période yoo xam ne période de trouble la kenn mënatul régula euh, régler société bi nit ñi di def lu leen neex di wax lu leen neex ndax lan dañoo wàcc ci dëgg dugg ci ay caaxaan jërëjëf Pape Fary yaakaar naa exemple yooyu mën nañ ci def duut baaraam hmm, lu leer nga wax depuis bi ko jëlee ci histoire ba egsi tey euh, ci sunu jamono tay ji ñu nekk nii euh, nga joxe ci exemple yu am solo muy sunu nitu diine yi mais na aussi borom pak bu tedd bi nekk di khadimul mustafa Serigne Touba donc dañuy gis ne kon deug euh niko fu gaay di waxe rek mom moy njëkk waye mom moy mujj donc kenn ku ci nekk da nga wara sax ci euh may fatali ñi déglu rek ne yéen a ngi déglu seen émission bi nga xam mouvement yokku ba yekko mom mo kay amal legi ci radio mubarak FM. Euh, chaque mois ñu def une émission après ñu di pour que nit ñi mën di déglu bu baax a baax a émission bi aussi mi ngi tudd yokk ba yëg donc objectif bi rek mooy bàyyi lépp loo xamante bi wala lépp bi mensonge la saxal li nga bi dëgg ndax dañoo dëgg ñu ci mbir mu euh, donc li nga wax lépp muy dëgg rek ci deug sax mo meuna jalle rabi Ali cibir ci bir dënd bi xom ma lañ ko meuna waxe ñi ñi nek ci bir jéeri ak ñi nek ci bir geej deug rek moom mo meuna doxal mais gis nañu dañu nek société bo xamanteni bi léegi pour nit ñi wax deug problème la loolu pa fari ko jangare waaw haaj euh amna ay cause ay cause mën ci lim aduna euh, tay bo xolé nit ñi di wax lu dul noonu li ci ëpp bëgg a jekku àdduna la bëgg a am koom-koomu àdduna wala bëgg a siiw ah wala bëgg am tur wala daal nit ñi am looy xëcc ci ci société bi te jàpp nga ne maanaam wane nu ma melul wala wax lu ma gëmul moo tax loolu moo mën ko am donc loolu nekk loo xam ne dina yóbbu nit ñi ñuy wax na ko sudul noonu loolu day firndeel ne société buy dox war na am ay régulateurs ñoo xam ne ñoom ñooy delloosiwaat nit ñi ci essentiel bi essentiel bi mooy newuñu rek àdduna nii di dund nii rek mais dafa am mission boo xam ne kenn ku nekk ci ñun amee na ko mooy maintenir la terre telle que créée par Dieu te wax naa la léegi ne yàlla dafa sàkk moo xam ci métier la moo xam ci religion la dafa sàkk àdduna def ko noo xam ne euh, dafa war a nekk lu lu lu lu lu lu loo xam ne justice moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy téye ba ci sunu roi yi tey bu demee ci séeréer yi tey roi africain bu mës a falu objectif am lan la mooy tege ci dëgg Haji Babacar yar nit ñi teg leen ci dëgg amul benn roi africain boo xam ne tey liñ ñi naan ay animiste animiste ay ceddo ceddo yëpp mës naa wàcc ci dëgg teg nañ ay mécanisme yoo xam ne soo wàccee dëgg maanaam ci saa si da nga koy gis moo tax kenn du kenn du diriger nit ñi tamatoo ndax justice balaa nga koy mën a doxal dëgg balaa nga koy mën a doxal yow sowal boobu foo nga doon incarnation bi moo tax soo mësaa màgget soit ñu sacrifier la wala ñu defal la fête boo xam ne régénérescence des force lay doon wala ñu sacrifier benn animal à ta place wala ñu sacrifier nit à ta place parce que gëm nañ ne kii gère dafa a mat sëkk ndax dafa dafa taxaw taxawaay suñu ci kaw suuf te suñu borom dafa mat te matam googu moom mooy roi boobu ci la war a taxawalee ci la war a taxawalee dëgg bu ñuy dem di dox di dox suñu société di yàqu régulateurs yi nga xam ne ñoo war a delloowaat doomu aadama yi ñu ci bëri joué seen rôle presse bi rajo yi journalistes yi ñu ci bëri joué tuñ seen rôle su ko defee Haj Babacar société bu mel noonu nit ñi dañu dem ba dañuy banaliser fen wutal ko weer woo xam ne dañ naan ku ci fen waa ñuul dara <laughs> muy mois d'avril nga xamne tay ñi ñi nekk ci rawati na ñun jullit ñi ñun ñoo ci gëna fess ndax suñu yeneen mbokk yi nekk seen diiné sax buñ waxee dañ naan yi kok amul caaxaan ndax ñom duñ tardé duñ duñ duñ duñ dañoo fonk liggéey té dañoo fonk seen cadeau mais ñun jullit ñi nga xamantene tay ñun ñoo ëpp gëna fess bo xolé lu ci ëpp tay ci ñun ci lay donc problème bi le manque d'éducation parce que nit ki buñ ko xamalul manam gravité fen mën ko ndaw te ne mën tukal aduna tay na ay guerre yu am yo xamné ci ci fen la tay ay divorce yu am ci fen la na ay ay digënté yu yaq digënté bay ak dootu ñu tuddante ci la na ak ak ak yaay duñ tuddante ci la donc fen mom musul dem nañ sax ba ñu ne fen bu yàq mo gën dëgg buy defar ma gëwuma lool parce que dëgg mo mënul yàq dëgg mënul yàq donc loolu jikko yu yàqu moo waral tay ñu dem ba banaliser fen kuy wax dëgg nak daanaka nit ñi euh do mëna jaxasoog ñu bëri parce que dañ naan kooku dafa compliqué. allemand la donc loolu jikko yu yàqu moo koy waral te loolu tant que delluwuñ ci manam ngir ñu tabax société bu solide. bu jëm ca kanam dina xaw a jafe. jërëjëf Pape Fary eh, kon de xaw ma fu nu jëm <laughs> parce que franchement dañoo nekk ci monde boo xamante ne bii eh, buñ la respecté dañ naan ay dóor la ay dóor buñ la respecté sooy wax loolu dëgg dañ naan ah ay dóor la buñ la respecté buñ la dañ naan ah waa jooju lu mu wax du dëgg donc dañu nekk ci monde boo xamante ne bii doy na waar donc Pape Fary eh, muy mbir moo xamante ne bii franchement parler doy na waar. ginnaaw ñun ñëpp nangu nañ ne ak lu mu mën di doon bu ko dëgg lalul day nësax loolu ñëpp ko nangu ah ñëpp nangu nañ ne lu mu mën di doon bu ko dëgg lalul dafay naxas nësax ba pare ñu nekk ci jamono joo xamante ne ji pour nit ñi wax dëgg problème la problème la euh, dama lay jox exemple ci sunu nitu politique yi des fois dañ naan loolu promesse électorale dong la loolu noo ko gisee. dafa am gis-gis yoo xam ne nit ki su ko ci jamono bi dañuy yaakaar ne euh, dafa teng te moonte gis-gis boobu ñun ñëpp moom lañ waroon amee parce que damay wax ne man kenn mënul dugal sama bopp ne dañoo dañoo promesse électorale man kenn mënu ko dugal sama bopp ndax man président bi toog bi fi nekk yàlla fi yàgg te yàlla may ko wér man li tax ma voteel ko 2012 mooy damay de vingt cinq ministres moo tax ma léegi nag su ma ñëwee nit ñi ne ma non réalité politique mënu def vingt cinq ministres ma ne non loolu man mënu ma ko nangu dama ne Lat Joor bi muy dem deqale ba jaari ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa xamal ne ko ne sa bakkan fa lay des danee man joxe naa sama kàddu te duma deltu ginnaaw ñun ñun ñun ñun tey ñooñu la ñuy woyee ceddo te ñun xaaj baabakat dinaa ñëw sa kër te li ngay wax wóor na leen doo ko def tey ci ñun la gën a yomb te ñun lañuy waaye ay jullit ak i chrétien ak i juif mais kon ñun ceddo yooyu ñoo ñu gën parce que bu fekkente ne tey li ëpp solo ci nit mooy jikko te jikko li ci njëkk mooy nit ki fonk kàddoom ñun ñu ngi dem juwaan ñu ngi dem jàkka ñu ngi waajal tabaski ñu ngi def nangam ak nangam mais teewul loolu yàqul dara ci wax lu dul dëgg te suñu delloo ci mbirum Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nee na wax lu dul dëgg ak ak bindu nitu yalla ñoo mën yëngal aras comparé xolal bindu nitu yalla ak wax lu dul dëgg mu ne yëngal aras ñun ñu jël ko banaliser ko ngay def politique né non légui comme campagne politique la mën wax luma neex dige luma neex mais limay ma sax wër na non mënuma ko yow ngay di ab julit yaakar né ëlëk am nga loy sentu wala nga di chrétien yaakar né ëlëk am nga lay sentu loolu man mënuma ko nag accepter Haji Babakar nga taxaw ak ay nit di la déglu nga wax ba jeex te wóor na ne ne yow li ngay wax naroo ko mais loolu c'est une haute trahison te tey réew tubaab bi nga xamante ne tey jëm ca kanam dëgg la de amul benn société bu parfaite ñoom tey lu ñu la wax wax dëgg yàlla moom du du du du yomba toxal moo xam période pré campagne la moo xam période campagne la moo xam ñu nekk en exercice tey France ñaata ministre ñoo démissionné xam nga lan moo tax ñu démissionné ñenn ñi seen ngor ñenn ñi taqal nañ leen ci lenn li ñenn ñi euh, ay principe ak conviction mais ñun tey pays pauvre très endetté wala pays en en voie de développement li ñu gën a tardeel Hadji Babacar bokk na ci jikko ju ñaaw parce que bu ñuy raayante te duñ waxante dëgg réew du parce que réew toute l'histoire de l'humanité na né li tabax société moy deug mota yow so jogé né damay vous damay vous ñëpp dañ la vous wara mu que jamono reconnaître nañ crise des valeurs amna ñi nga ne taxaw nañ né affaire goor jigen fi ndax wax mais tay <laughs> ay ñaari nit nit ñoo parce que japp nañ yaa ngi attaqué ay lobby yoo xam ne dañoo am doole tey euh, ñoom bañ ñëwee laaj ndax pare ngeen ngir def góor jigéen wala déet mais mun mënoon leen wax loolu bu yow bu ko xalaatati et cetera donc dëgg moom ba Haaj Babacar puso bu réer la mag mën na koo for xale mën na koo for am na ñoo xam ne tey duñ wax dëgg ndax seen poos am na ñoo xam ne duñ wax dëgg ndax seen i intérêt am na ñoo xam ne duñ wax dëgg nit ñi parce que xam yaakaar nañu suñu waxee nit ñi nit ñi wan leen ginnaaw tey régulateurs yi ñu doon wax sànq muy ñi nga xamante ne ñoo war a wëlbati nit ñi teg leen ci yoon tey bëri na ci ñoo xam ne tey duñu wax dëgg-dëgg nit ñi njàngaleem Sëñ Tuuba wala njàngaleem Seydi El Hadji Malick Si ndax lan yaakaar nañu suñ ko waxee nit ñi nit ñi baleen dootuñu amati ay taalibe yombalal nit ñi lépp ndax lan seen mbooloo wala ndax lan li ñuy yóbbu seen biir kër

te defar gi njëkk mooy mu xam ne dëgg moom moo gën fen te dëgg mu des ci bakkanam moo gën muy fen ba sooyee bakkanam loolu bu ñu amul société bu mel noonu bu taxaw ngir loolu loolu société bii ngir mu jëm ci kanam dina xaw a jafe tey xoola rek tey da ngay gis ay micro trottoir souvent da ngay ñëw rek tiimal nit micro du ne la xaw ma ci dara de faaw mu wax Sénégal ñëpp am xam-xam ñëpp ay wax ñëpp ay expert réew mu mel noonu nag ngir mu jëm ci kanam dina xaw a jafe. waaw donc euh, Pafare xam naa sax question bi ma lay bëgg a laaj nii xaw nga ci dugg tuuti mooy musiba yi musiba yi nga xamante ne bii ñàkk a wax dëgg daf koy indi ci am réew walla ci societé walla sax ci biir famille bi ñuy dund. dëgg bu dee day defar ay fen day yàq ndax nit mën ngaa fen fen maa ngi jégalu nag ci kàddu gi kàddu baatu wolof la rek. baatu wolof la. nit mën naa fen fen fen fen fen ba am tur walla mu am mbooloo wala mu am alal waaye gis nga sëñ Babacar loolu day xëy xëy rek dem lu dëgg lalut dañ naan lu yàgg dëgg la maanaam tey jii rajo xaaj Babacar su maintenir ba léegi fukki at ndax dafa teg ci dëgg dëgg lu lu lu dëgg nekkul lu dul dëgg du yàgg Wolof jaay nee na lu dul dëgg du yàgg. ànd boo xam ne diggante ñaar ñuy ànd su fekkente ne ànd bi tegewul ci dëgg maanaam dañuy wéet di jaayante teqali ko di jëwante ànd boobu yàgg-yàgg day séparé wu mariage boo xam ne couple boo xam ne tegul ci dëgg ku jigéen ki dane naw naa ci lekk sama ñàkk mbootaay naa ci liggéeyal nangam naa ci def nangam naa ko ratt ba mu jeex dem ba ca biir ne naa dugg ci sëy bi sëy boobu yàgg-yàgg day tas parce que dëgg moo ko lalul parce que ki ku kuy jigéen ki yéene moo rafetul nga ne naa dem ci benn rajo wala naa dem ci benn tele wala naa liggéey fenn waaye liggéey bi ma ci liggéey daal naa fexe ba xam ma ma xam ñoom seeni secret xam ni ñuy liggéey xam nangam nangam bu ko defee ma daal di def ni doon genre espion loolu yàgg-yàgg yéene jang caam lu ñaaw ca ngay mujjee mbir lépp nit lépp lu muy dugg loo xam ne tegewul ci dëgg rek Haji Babacar lam cay jëlee après ci moom lay këppuwaat waaye du këppuwaat sax ci ñam koy fexeel boo xoolee tey tubaab bi seen digënté ak sëñ bu mag bi ñom ci ay nar ci lañu téggé ndax néna nit ku ñul mënulul bopam dara ne leen ñoom ñoo fi nek ñom tuba bi yalla mom dañ ko bëgg a seppi ci aduna bi ñom ñu yoral seen bop aduna bi sëñ tuba ne leen loolu du fa amé ñom seen nar yoy tay xolal tay yoonu mourid àgg na bu ci biir kër tuba bi ay tuba di jébbalu di ñëw di sëriñ si ndax lan sëñ Tuubaa projet de société dafa tege ci dëgg tubaab bi ñoom seen projet dafa tege ci ay nar kon dëgg moom fépp foo xam ne jiitu na fa mooy base fondement bi nga xam ne moom mooy lépp loo ko yen nag attan na ko te it bu ñu jëlee ci njàngalem Yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne Haji Babacar nit du deñ di wax dëgg du deñ di wax dëgg du deñ di wax dëgg bañ na Haji Babacar mi daal waxatu dëgg la ñu bind ko

société boobu day avancé waaye société bu bëri ay tappale comme société Sénégal mënta dem fenn bu ñu waxantee dëgg te yàlla rek tax sunu société dafa feebar nit ñi ci tàppale gu metti ci la ñu nekk ma tàmbalee ko ci sama bopp su ma waree liggéey ci tappale laa koy teg su ma waree def sama devoir ci tàppale laa koy teg su ma waree wax lu baax ci tappale laa koy teg duma xool man sama bopp ni ko Jésus waxee au nga xool yow montagne bi nekk ci say bët poutre bi nekk ci au nga xool montagne bi suuf bi nekk ci sa bët déedéet da ngay xool pépp suuf bu nekk ci bëtu jàmbur donc tappale yooyu bëri ci société bi dem na ba tax tey boo déposé sa dossier fenn nga xam ne yow da nga war a toog ñu jël dossier bi yóbbul la ko doo ko def de ndax gëmoo ne ñoom dinañ ko yóbbu ndax ci tappale yi ñu nekk dangay oblige obligé sa dossier woote fële ndax dossier bi àgg na woote fii woote fii waaye déposé sa dossier rek toog boo ko defee sa dossier ñaari du àgg loolu nag société bu huilée société bu tege ci dëgg bi nga xam ne àq ak yelleefu doomu aadama kenn ku ne jox nañ la ko société bu me bu bu tege ci loolu loolu waru ci am tey da ngay dem ci bërëb bëgg benn papier boo xam ne yow sa àq la ak yelleef mais nañ la ciy laajaat xaalis da ngay dem ci bërëb tey bëgg fa say droit mais dañ la ciy laajaat xaalis loo xam ne yow fay nga ko ba pare mais dañuy continuer del ko laajaat muy corruption corruption ba tey dafa tegewaat ci tappale ak ci ay fen ak ci ñàkk tege ci dëgg loolu yëpp nag baabakat bu nekkee ci société muy société bu feebar wax dëgg képp kuy wax war ngaa wax lu jëme ci waat delloowaat nit ñi ci dëgg guy guy guy tax sa bakkan des si moo gën fenn woo xamante ne day préserver sa dund. donc euh, Pape Fary jërëjëf franchement exemple yi nga joxe leer na te mën nañ ci sukkandiku muy société bu feebar société boo xam ne comme ni ma ko waxee léegi. sooy wax ñu naan ay dóor la <laughs> beneen bi booy wax ñu naan ah xanaa du waxi diw donc société bu demee ba egg foofu war nañu def ab taxaw seetlu tax mouvement yokku ba yëkkoo juddu euh, wut ab émission aussi tudde ko euh, yokku ba yëg ko te émission boobu yu mel nii rek lañ ci fas di doxal mooy di waxtaan ci na la nit ñi dee dégg dinañ mujj teg seeni mbir ci dëgg ñu ñaan sunu borom jàppale ci rek exemple bu am solo mais dafa am ko xamanteni bi benn serignam daf ko mos wo diko di ne ko demal nga jël cahier bi eh, nga bindal ma ci koñ bi nga dëkk gaay ni ñi sikke numéro 1 defal di wax sikkam numéro 2 defal di wax sikkam et cetera mom mu dem bind ba cahier bi fess dem jox ko señ bi señ bi di xol ba ci ak ne ko mais man day seen bir jaaxal na ma yow dama laa waxoon bindal ma ci koñ bi ñu gën a sikki mais yow fii say sikki bopp laa fi gis mu ne ko paree gu ma sax ci samay sikk su ma paree door a bind eh, sikk askan bi mais man samay sikk ci boppam fees na kaye bi xam nga ne kooku mën nañu wax ne kooku nitu dëgg ngi noonu ah nitu dëgg ngi noonu donc il faut ñu dellu ci dëgg euh, Pafari damay fàttali ñuy déglu rek donc ne ñi ngi lëkkaloo aussi ak mu Moubarak TV Moubarak TV nag chaîne YouTube la di ñaan yàlla sunu borom xëy na bés mu doon télévision donc euh, ñu ànd ci ak Gora jàll ak man Fatim Dem donc euh, xam naa li ñu dese ci émission bariwul mais dañuy ñëw nag ci jamonoy tey jii ñu nekk actualité boo xamante ni bii xew na yàggul dara ñu xool ci dëgg waxtaan ci muy gis nañ ne sunu jàmbaar yi football demoon nañ football yi dem ba egg final yàlla dogal ñu ñàkk ko ah bi ñu ko ñàkkee nag. gis nañ ne biñ bi biñ leen gàttandoo sunu njiitu réew may na ci lion bu nekk vingt million sunu sukkandikoo ci sunuy source a ah, loolu aussi lañ bëggoon a génne paaru dëgg bi bu dee lépp dëgg la ñu ne waaw a ah, bu dee wax dëgg yàlla d'accorduñ ci it ngir senegal fu mu toll it ñu xam ci xalaat. Babacar jërëjëf euh, xam nga ñun ci dëkk bi lañ dëkk dañuy fay impôt. te it am nañ baat am nañ kàddu bokk ci réew mi ndax kenn moomu ko ñu ñëpp ko bokk loo xam ne yëkkati nañ ko maye ko du xaalisu nit xaalisu Sénégal la ci nga bokk ci laa bokk ba ci wàllu pétrole bi waaye dama yaakaar ne football ak coupe d'Afrique tey bu ñu doon évaluer tey bu ñu jëloon tey coupe bi manam retombée économique c'est-à-dire que man damay dégg ay nit rek di def ay analyse mais vague tay ji buñ ñu coupe bi retombée économique concrètement Sénégal lan lay am ci retombée économique tay buñ ñu coupe bi manam tay ndax day tax ñu yok suñu salaire ndax tay day tax ñu am yeneen hôpitaux yu bees ndax tay day tax ñu jënd ay ay ay matériel dialyse ndax day tax ñu tabax ay ay école ndax day tax ñu tabax ndax chômeur yi dinañ am liggéey est-ce que dañu tabaxaat ay nouvelles entreprises mais non xam nga football moom passion la rek gis nga ñi ciy rey seen bopp yëpp passion kese la ndax ku jógee fii Sénégal dem dagg paas dem Égypte daggaat billet jël hôtel ñibbi si mais kooku gañewu si dara passion rek te pourtant basket baa ngi fi pourtant pétanque baa ngi fi <laughs> est-ce que gis nga tey pétanque tey ni ñu médiatiser football ñu médiatiser ko pétanque te sport la au même titre ñoo tolloo karaté baa ngi fi donc football passion la football nek passion ba ci biir daara yi sax xale yi bu ñu gis ñu dem ca gannaaw defal seen di football. loolu yàlla moo ko def xaw ci communication la xaw fu mu jaar mais nit ñi nañ ba sénégalais football léegi ki nga xam c'est un patriote sénégalais Babacar ngir am alal machallah nek un professionnel international football que passion de ci bir xolam mu ngir défendre couleuru réewam man japp naa ne jàpp naa ne kooku ngir alal dafa ñëw ngir bëgg réewam passion bi nek ci mom bëgg prouver mom tam limu mën ngir apporter ko développement Sénégal ndax ñom bu lool lan lañu développement Sénégal amna ci nak ñenn ku melni Sadio Mané ku melni euh, basketteur bi euh, euh, tammi def ay ay action sociale yu am solo di dimbali hôpitaux yi ñooñu seen action dafa concrète sur le terrain mais ñi ko jiit woon tey internationaux yi jiit woon nga xam ne 2002 dañoo amoon ay ay contrats yu am solo lan lañ indi Sénégal xam Sadio Mané tabax lycée donc loolu mën naa ne lu lu lu positif la mais ñoom jàpp naa ne ñëwuñ ngir alal léegi su 22 le 23 ku ci 20 millions Nous Babakar, loolu ñaata abri provisoire et élèves ont bu bu ont piste de production pour génne sen loolu ñaata la mënoon a defar nañu ils dëgg te yàlla tax santé bi ont ñu ngi fi doon dialyse tay médicaments yi cher na tay accès bi jafe na dem tay da ngay dem ci hôpitaux yoo xam ne ngeen nga gis fay spécialiste du yomb tay hôpital bi tay ay gynécologue ay ñoo xamante ne ay ay ay ay ay ay ay médecins spécialisés lañ ay benn ñaar ngay gis ci benn toute une région lan moo tax manque de moyens université tey ay dix étudiants ci benn nekk donc dafa am ay priorité yooyu ñoom ñoo gën a doon priorité jàng faju sécurité xoolal tey suñu commandant bi jël ba kanam nga yaakaar ne tey suñ autant d'agents ak autant d'armement possible loolu dina am bu ñu amoon tey ay oto yu baax yoo xam ne ay vitre blindée la dinañu jël ba kanam baaba xaaj Babacar léegi bu ñu jëlee ju toll noonu ko mais loolu xam nga ne du neex ñeneen ñi parce que dafa am yeneen priorité yu ko gën urgente yu gëna taxaw yo xam fofu lañ ko gëna soxlaawé fofu lañ ko waroon duggal tay un entraîneur bu ñuy fay 10 millions xaw 5 millions par mois. loolu loolu loolu nga yaakaar xel nangu na ko. loolu nga yaakaar xel nangu na ko loolu nga yaakaar xel nangu na ko donc yooyu yooyu moo tappale yu bëri yooyu moo indi Sénégal agsi fii mu agsi parce que alal ji mi ngi fi chaque jour ngay gis ay contrat de partenariat yu ñuy signé ci télé bi chaque jour ngay dégg ay milliards yu ñuy dugal ci réew mi mais milliards yooyu ngir nga sentir que suy panier de la ménagère lu jafe la milliards yooyu ngir nga sentir njëg lu wàññeeku lu jafe la benn portion nit benn classe nit benn segment doomu aadama rek ñoo ci profité te loolu yëpp li koy waral mooy tappale goo xam ne tàmmal nañ ñu ko ci tappale yooyu ba te réew mi mën a jëm ca kanam mais bu ñu amoon conviction ne ñun dañu ñëw di def li américain yi wax yow fexeel ba laaj loo mën a defal sa réew mais bu laaj lu la sa réew mën a defal nga ñëw ngir liggéeyal sa réew yow la nga am ak la nga amul waxuma la lañ lay jox waaye la nga am yow sa alalu boobu danga nga koy dugalaat ci réew mi jëm ca kanam bu ñu amoon ay nit yu mel noonu juróom wala fukk wala ñaar fukki nit ci gouvernement mën nañoo jëme Sénégal ca kanam mais tey fan la ñu teg ne nit ki tey balaa ñu ko nommer dafa war a def ay résultats politiques maanaam danga nga war a gagner sa bureau de vote gagner sa centre de vote gagner sa circonscription gagner sa mairie gagner sa arrondissement gagner sa région ñu soog laa récompenser la léegi su ko defee yow ki nga xamante ne dañ koo faloon te gañewul loon ñu wàcce la kon léegi xoolatuñ compétence lan lañu xol xool muy politique politique nan lañ ko jappé ci réew mi fexel ba am nit ñi nit ñi no leen di amé jox leen nit ñi mom képp ku leen dajalé xaaju Babacar di nga leen jox li ñu seen bir kat tay di nga di nga di nga duufal seen nop nopp duufal seen nopp moy moy di nga leen dik te woor na leen ne souvent li nga leen di dig wóor na ne mënoo ko moo tax ñu ci bëri buñu falo dañuy changer numéro mënatoo leen a jot. mënatoo leen a gis ndax lan dige woon nañ loo xam ne wóor na leen ne bañ koy dige duñ ko def réew mu ne ca loolu nag jàpp naa ne ngir mu jëm ca kanam dina jafe tey boo xee ne damay politique waaye politique bi dëgg laa ko teg dëgg rek laay wax nit ñi dañu saa yow doo nit saa yow bee boo nga toog politique teg Sénégal nga bëgg koo wax ci dëgg non doo dem ñu ne la non il faut être ñu jël diplomatie ñu ne léegi diplomatie mooy maslaa ñu ne maslaa mooy raayante ba jàll dangay mën a maslaa daal maslaa gi mooy

réew mi dina jëm ca kanam journaliste bi buy wax muy def ay analyse yoo xam ne wóor na ko ne lii mooy li mu gëm mais du wax parce que bu waxee leneen su génnee ministre bu woo ko bu génnee nit ñi woo ko bu génnee ñu dàq ko ci organe de presse bi non di def ay calcul donc di wax te dëgg di wax dëgg te yàlla rek tax loolu nag ñépp am nañ ci pas de responsabilité mais daal man sans wàllu bopp en tant que sénégalais bokk ci réew mi man loolu ànduma ci ndax dafa am yeneen priorité yu ko gën a am solo yoo xam ne suñ ko fa dugaloon sénégalais yëpp gis ci seen bopp moo gën ñu koy jox ay benn benn donte ñooñu méritant nañ waaye man jàpp naa ne loolu ñu def ñoom dañ ko defal ngir seen réew te ñoom la ñuy am feneen moo ëpp téeméeri junni yéen lu ñu leen mën a jox te lii ñu leen jox ñu ko dajale woon mën naa tabax ay abri mën naa changer ay abri provisoire mën naa tabax ay dispensaire ay post de santé mën naa recruter waat ay médecins ay enseignants yoo xamante ne dina leen dina jëriñ Sénégal yëpp te yaakaar naa ñoom luy jëriñ Sénégal moom moo tax ñuy ñëw di moye la mayo jërëjëf pa Fary mu mel ne yegg si nañ fi nu war a yëkkatee jotaay bi euh, parce que man bërki biig ah bërki biig euh, de 23h à 9h du matin sama koñ te je pense que ne sax réew euh, Diourbel amul courant kenn fanaanul ci loo xam de 23h à 9h du matin vraiment doy na war doy na war trop sax. courant amul nit ñi tëdd di upp yooyu bëgg leen a sonal man bi ma yeewar sama xel ci loolu la njëkk a dem ne waaw man ne waaw man ñii ñoom ñii di yëkkati ay 20 millions di ko may par jour waaw courant bi moom est-ce que mënuñu ko stabiliser parce que comme ni nga ko waxee ñun dañoo am suñu kàddu ci réew mi nag te dañu koy wax est-ce que mënuñu stabiliser d'abord le courant ba pare ah mais daal je ne sais pas dafa mel ni daal maye moo ko gënal def utile daa mel ne loolu lay nirool ah donc dégg nañ ci lii nga ci wax bu baax Pape Fary donc euh, émission bi nag comme ni ñu ko waxee euh, dëgg moo ko tax a jóg fexe ba nit ñëpp tënku ci dëgg bàyyi ay tappale ak ay njuflang ah commencé ko ci ñun nag newuñu ñun dañoo mat mais en tout cas loolu mooy objectifu mouvement bi loolu mooy objectifu li nga xamante ne bii moom mooy émission bi ñun ñëpp ñu jéem a tënku ci dëgg su ko defee yàlla mën nañu dimbali ba société bi un jour ou l'autre bu dul ñun sax suñuy sët fekk fi loolu ba société bi avancer. a avancé wu loolu moom ñu mais aussi chaque thème dañuy jël ben thème d'actualité ñu brosser ko ci thème mu tey nga xamante bi bii mun de ñu ngi ci proverbe buy wax ne si tout le monde disait la vérité le bonheur amassé peut s'accroître de soi-même hein euh, thème bi nu ko booleel tay moy dafa tomber dëkk bi bari ay jafé jafé ba pare ñu yëkkati ay millions di ko fay di ko may joueur ah comme dëgg rek la ñuy wax ñu doon ci laaj xalaatu askan bi mais donc ni ñu ko gisee kon mooy am na ay priorité yoo xamante ne bii moom la ñu war a def ba pare bala ñuy dem ci yu mel noonu donc Pape dañ lay jox euh, nga wax ñu looy tàggoo mbokki auditeurs yi ak téléspectateurs yi lay déglu. jërëjëf Hadj Babacar xanaa di santaat yàlla bu baax rek di la santaat bu baax ak mboolem sa équipe bi nga àndal li ngeen ñu dalal ndax euh, loolu seen baax la rek ak seen laabiir waaye xam ngeen ne ñun ñoo gën a njublag ñëpp ñoo gën a dëng ñëpp xanaa kay nit moom boo xasee wax rek mënatoo reculer xam naa loolu ngeen ci jublu bëgg ñoo dimbalee loolu ñu ngeen ci sant bu baax ñi seetaan ak ñi déglu itam ah lépp loo xam ne kàddu gu ñagas la wala gu doy waar gu tegginewul guñ wax ngeen xam ne loolu sunu melokaan la rek ngeen jéggal ñu ko xam ne sunu matadi la ak sunu di waaye li liñ ci jubluwoon nag mooy lu rafet ak lu baax waaye nag dañoo matut te jé xam nañ ne doomu aadama yi matut waaye ñun ñoo ci rawati kon nag lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko bu baax xam ne bu ñu sañoon lépp baax buñ sañoo itam euh, lépp rafet waaw ñu gën a góor góorgóorlu rek ci dëgg gi ndax mooy lépp buñ ko amee bu ñëpp dee wax dëgg rek affaire yi day neex day yomb man yenn saa nit ñëw ne ma dama bëgg certificat de scolarité sama doom parce que dama ko bëgg a déposer caisse de ma ni ko sa doom fu mu doon jàngee mënuma bërëb sàngam ma ne ko ah mais <laughs> <laughs> demal foofu mu ne noo xam nga rek dama bëgg ma ne ko mais quand même ah, sa doom jàngi fi nga bëgg mu defal ko certificat de scolarité naa bu ñu génnee ne mooy booy bi dafa soof quoi <laughs> wala sama doom dafa am examen bëgg nga defaral ko bulletin dafa bëgg préinscription sëñ bi sëñ bi nañ tege ci dëgg dëgg dafa noppale te bul ci bëgg ku la ci tagg bul ci ragal ku la ci ŋàññi loolu bokk na li gën a sonal nit ñi su ma defee lii ñu ŋàññ ma su ma deful lii duñ ma tagg loolu bokk na ci gën a sonal doomu aadama yi mais defal ak sa conscience tranquille lo xam tay tey bu ñu la fëggoon 3 heures du matin ya wax li ya def li ana say preuve nga mën ko andi waye bari na tay lo xam nit dang koy wax la mu koy def bëgg lu neex nit wala bañ lu naqari nit donc tax mu diko wax wala diko def waye woor na ko ne loolu tegul ci dëgg bari na lu ñuy commandité te tegul ci dëgg nit diko def ngir bëgg lu neex nit waye bayal xel sa ak sa borom bayal xel sa ak sa bammel ya ngi dox jëm ci te bo démé mom dëgg rek nga fay fekk kon nak sant nañ bu baax té loolu moy siraatal mustaqim moy yoonu deug moy yoonu njub kon nak buñ ci tegee rek sun aduna yépp day neex dañuy dund aljana té deewaguñ waaw c'est la société idéale mom lay borom xam-xam yépp doon réfléchir bëgg ko kon nak dañ ciy jëm li ngeen ni def lu am solo la parce que presse dañu éduquer informer divertir waye nak bala nga divertir mom, na nga éduquer na nga informer ba nopi kon li ngeen di def lu ci am solo la yàlla na ko yàlla tasaare te doomu aadama bu ko dégg mu amal la njëriñ waaye lépp lu ci dëng nag ngeen jégal ñu ko baax xaaj Babacar yàlla na la yàlla dolee sàmm te aar la ak mboolem sa équipe yëpp ba li nga yéene nag ci société bi yàlla mottalil la ko te defalee ci lu kay sa njortu ci barke ak ñu baax ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleyka salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Pape Fary Seye gërëm nañ la sant la di gërëm aussi mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci Moubarak TV une fois encore ma koy wax na muy chaîne YouTube ñu ànd ci ak euh, Gora Diallo ak Mame Fatim Dem waaye aussi mbokk auditeurs yi ñuy déglu ci rajo Moubarak FM ñu ànd ci ak Serigne Saliou Diouf ci cabine technique bi donc di sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp Euh, di wax na rek li ñu yëkkati woon tey rek ci gàttal buñ koy tënk mooy dëgg daal moo mën a jàlle jaam ci mbir mu nekk kon nañu sax ci dëgg euh, di moytu di wax li ci ginnaaw dëgg euh, bu nu diglee sunu consultant bi je pense que ne lim ñu wax lépp mooy société bu ñëpp tegoo ci dëgg rek mu avancé mais aussi bu nit ñi tegoo ci ay nax ak ay wor ak ay wuruj société ba du dem fenn te loolu mooy siraatal mustaxim ihdina siraatal mustaqim donc yàlla nañ ci àlla teg bi jaay saydul wajud salaamaaleykum wa rahmatullah